asalaamaaleykum les amis asalaamaaleykum sama gars yi di leen jaajëfal bu baax te di leen dalal ak jàmm sur ma chaîne YouTube Net Bi TV di am mbégte ak kontaante bu baax seetaan bi ngeen di seetaan ak suivre ngeen di suivre te di leen ñaan yéen ñi nga xamante ngeen ak gan seen bi te abonné goo leen ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te bu leen fàttee bés cloche de notification bi di dikkee yéen defeen waxtaan ak série bi di la polygame si ki nga xamante ni moo di Seun Seun nag boo xoolee dafa nar a wax ba waxe kaayam jeex ndaxte Seun boo xoolee li ko métti cool yi xadi baabu di coog xale yi si kër gi di Xadi ak Awa loolu nag métti loolu ki xam ne moo di sën ba tax sën ñëw di attaque ki xam ne moo di Xadi Baabu ngir Xadi Baabu bàyyi coow li mu coow xale yi waaye nag sën moom bokkoon si li gën a métti mooy lu Xadi Baabu ànd ak ki nga xamante ne moo di umu di ngeem umu pour umu mën a ñëwaat si kër gi en tout cas sën moom mere na trop xam ne moo di Xadi Baabu ba tax mu jaral ko mi ngi xoloog moom moom sën waaye nag Xadi Baabu moom dafa mel na sën na ko xale yi man dugguma seen ñoom ñooy dugg sama mbir te man ku dugg sama mbir da nga yooxu bëccëg ndar kàmbu mu mel ni xadibaabu moom dafa ndekkal la moom xadibaabu dañuy jàll si kaayu Ndeye Ndiaye ak binam ndax bi nga xoolee Ndeye bëgg naa ñaan binam xaalis waaye nag si xewi bàjjen bi la ko jàllalee ba tax Ndeye Ndiaye mu ne binam moom moom yorul xaalis moom Ndeye Ndiaye te xewu bàjjen bi amul benn yére bu mu si sol lu dul day fóotaat wala mu abu yére mu mel ni binam moom bëggul xewu bàjjen bi dara sabote ko wala mu am ay xajam moom binam ba ngi nar ko jox ki nga xam ne moo pour Ndeye moom mën a mën a préparer si xew bi waaye nag bi nag moom comme que lépp lu muy def la si ba bàjjen moom binam ba tax bi nag moom nar a yeggee bàjjen 200 000 yu mu nar a jox Ndeye Ndiaye en tout moom mu mel dañ ko oo moom Ndeye ba tax mu ñëw si kalamu bàjjen attaque ki nga xam moo di binam ngir rek bu bàjjen xam ne binam da jox xaalis moom Ndeye Ndiaye waaye nag binam moom na ki nga xam ne moo di Ndeye Ndiaye moo ko joxut ay information si ne bëggul bàjjen yëg ko waaye nag binam moom mujj na ko comprendre ba ne dina jox Ndeye Ndiaye xaalis bi gars yi di yemane yéen fii si vidéo bi rek di am mbégte ak kontaan bu baax seetaan bi ngeen doon seetaan ak suivre bi ngeen doon suivre te di ñaan yi ñi nga xam ngeen ak gan seen te abonné si ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te bu leen fàttee bés kolos de notification bi jaa ngi jëf